tàqalikoo na ak Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi premier ministre bu Sénégal Macky Sall tàqalikoo na ak maxtar Cissé tàqalikoo na ak Aliou Ngouille Ndiaye mi ñu dénkoon wàllum intérieur tàqalikoo na ak Oumar Youm njiitu mi di président Macky Sall lu toll ci fanweer ak ñett ci ay ministre la tek ak lu toll si ñeent ci ay secrétaire d'État réew mi ko quotidien moo xëy di ñu xamal li xew ci réew mi ak waa parti réew mi dugg ci gouvernement bi yéen gii de libération mu ñu xamal lan ñu Antoine Diome mi nga xam ne moo fi nekkoon agent judiciaire de l'État moo wut wuutu Aly Ngouille Ndiaye ca ministère de l'intérieur yéenekaay gi nee na Omar Sarr bi fi nekkoon numéro 2 dugg na ci gouvernement bi yéenekaay gi daan nay wax ne Aïssata Tall Sall osé na dugg ci gouvernement bi moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum affaires étrangères moo fa wuutu Amadou Ba yéenekaay gi di Vox Populi nee na njiitu réew mi di Macky def na yëfu politique am ba bàyyi Macky Sall daan nay dëggal fësal dil bi nga xam ne ñenn ci askanu Sénégal ñoo ngi doon njortu ne Idrissa Seck ak Macky Sall dañu doon dil ak noppik Idrissa Seck gi yéenekaay gi de la sañu jàngee fa Sall écrasé na toroxal na rey na ñi nga xam ne ay nitu démbam la ñu woon ba pare yëkkate Idrissa Seck enquête yéen a kaay le témoin na Macky Sall jamono ji mën nañoo wax ne carte gi daf koo jaxase waaye nag daan nay àndu mboolem ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom te am ay ambition a ku si da ni Aminata Touré daat nañu koy dàq Amadou Ba daan nañu koy dàq dafa amoon ay ambition Makhtar Cissé dàq nañu ko Aly Ngouille Ndiaye dàq nañu ko Omar Youm dàq nañu ko Mohamed Boun Abdallah Dionne ko yéen a kaay gi de Les Échos nee na mi di Macky Sall ak mbaalam ci géej gi napp na Idrissa Seck ba pare tàqali ko ak cadre yi nga xam ne moom la àndaloon yéen kaay ki mu ñu xamal lan ñu am na ñaari ministre yoo xam ne ci parti réew mi la ñu bokk kenn ki di Yankhoba Diattara kenn ki di Ali Sale Diop Idrissa Seck ñu jox ko conseil économique social environnemental Aïssata Tall Sall ñu jox ko ministre des affaires étrangères critique yéen kaay nee na Idrissa Seck mi nga xam ne moo dem conseil économique social environnemental dugg ci gouvernement bi loolee haute la war gu rëy rëy yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na Idrissa Seck Macky Sall jamono ji ñoom ñaar lëngu nañu seen diggante neex na waaye ana kan moo si rogo jeeru moroomam ana kan moo si nar a rey moroomam Idriss Seck dafay rey Macky Sall wala Macky Sall moo bëgg doggali Idriss Seck yéen a kaay gi di ko Quotidien ci xalima ak Abdoulaye Thiam daat nay wax ne njiitu réew mi di Macky Sall ma ngi nag bale di defar yoon wi nga xam ne moo koy may ngir moo am beneenu mandat ci bopp réewum senegal yéen a kaay gi di réew mi Quotidien xëy ñu jànge fane dugg bi Idrissa Seck dugg ci gouvernement bi tax na opposition bi yàq nañu ko musiba ak mbelengaana docteur Babacar Babacar Diop moom daal nañu koy consulter Idrissa moo ko consulter waaye nag dafa lànk kandaare na ko man dafa am noo xam ne moom laay doxee Abdoul Mbaye daal nay wax ne deal bi nga xam ne moom la ñu doon wax diggante Macky Sall ak Idrissa Seck lépp leer na yéen i kaay gii de la Tribune nee mi nga xamante ni tabbu nañ ko ngir mu jiite conseil économique social environnemental sénégalais yu bare bari am nañu si te nag loolee coow lu rëy la jur Macky Sall tàqalikoo na ak moom mu ne day ànd bu yàgg la yéen a kaay gii di libération nee na Idrissa mi nga xam ne moo fi waxoon 2019 ne bu faloo dafay dindi conseil économique social environnemental ndax amul benn njëriñ ci réew mi tey Idrissa Seck moom la ñu jox kër googee yéen a kaay gii de la témoin nee na Idrissa kay li nga xam ne moom la wàcc woon daf koo daal di lekkaat journal bi nee na Idi est-ce que Macky Sall defu ko nag ab punu secours bi nee na Idrissa Seck fi ñu ko doon xaar maanaam du fii dañu ko doon xaar ci avion mu wàcc ci sareetu am yéen a kaay gi de nee na Abdou Karim Fofana ak Omar Youm yooyee nag ay départ la yoo xam ne ñu bari xaaruñu ko woon journal bi nee na ñu bari doon nañu xaar ab gouvernement boo xam ne dinañu ko xóotal bëri ay coppate waaye nag loolee gisuñu ko sa yéen a kaay gi de Direct News daan nay wax ne Ousmane Sonko mu neex ak mu naqari mën nañoo jàpp ne mooy chef de l'opposition yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na Idrissa Seck mi nga xam ne dem na ci Macky Sall jékkul jékk rek dem noonu dañu ko négocier xaalis bu weex tàll xaalis bu weex tàll ndax Idrissa Seck ci boppam moo demoon ba am ay jafe ci lu lu jëm ci wàllum xaalis ak ci banque yi jamono ji mën naa noyyiwaat yéen a gii gi de Les xëy di laaja Omar Youm lan la defa Mohamed Boun Abdallah Dionne lan mooy ëllëgëm ci wàllum politique njiitu réew mi di Macky Sall confirmé na bi ñu doon wax digganteem ak Idrissa Seck journal bi nee na Macky Sall ubbil na Ousmane Sonko bunti pale ba ngir mu dugg fa enquête yéen a kaay réew mi quotidien Vox Populi daan nañu xëy di ñu tàggee professeur Iba Der Thiam nee nañu bibliothèque bu mag daan nay génn àdduna maanaam ab monument moo daanu journal bi de la témoin xëy wax ne Iba Der Thiam bu mag moo dem journal bi di réew mi quotidien xëy di ñu xamal naan ñu marine nationale dafa jàpp benn gaal boo xam ne dafa defoon drogue ci waaxu Cap Skirring yi waaye nag ba ñu leen jàppee loxo ci poos ñoom trafiquant yooyu dañoo jekk-jekk taal gaal gi yéen kaay gii di sunu làmb nee na CNG ak équipe bu yees bi benn directeur général ab société mooy nekk ci bopp CNG journal bi di réew mi quotidien xëy na ci Edouard Mendy international sénégalais bii nga xam ne mooy toj jamono ji Premier maanaam sa Chelsea stade yéen kaay nee na Edouard